waaw déjà dama jàpp ne Sénégal lu tax mu nekk république privée déjà euh, dëkk la bi nga xam ne ñun sénégalais yi moomu na bañ koy tabax laaj ñu sénégalais yi li ñuy woowee Sénégal gii yëpp tey jii muy suñu drapeau muy suñu constitution muy suñuy emblème suñuy armoire yi bañ koy tabax ak ñi ko defar duñ sax ay sénégalais. xolal suñu armoire yi nga xam ne ku ñu tax Suzanne Gauthier benn jigéen tubaab la bi nga xam ne moom sax franc la woon moom moo defar suñu armoire yi defar gaynde googu ak ak tànku dra drapeau yi nest pas euh, yemul ci moom suñu kon suñu suñu national sax benn tubaab bi ñuy wax Herbert moo ko moo ko joué donc lépp lu ñuy woowee tey Sénégal ay tubaab ko defar ay tubaab lañ ci woon defar ko te tubaab ñu si gën a bëri ay franc-maçon la ñu donc dëkk bi nga xam ne dañu ko tabax sans laaj sénégalais dëkk bi di dox di servir ñeen ñu dul sénégalais demal ci géej gi nga xool demal laaj suñu mbokk sénégalais yi nekk si géej gi maanaam contrat jën yëpp dañu ko jël jox ay tubaab demal xool ñu si jiir yi suñu suuf si suuf yëpp ñu koy jël di ko jaay ay tubaab ak ay naar pour ñu di fi bay Sénégal donc ñun sénégalais yi d'ici 20 à 25 ans jàpp naa dañ nekk ay doxandem suñu biir propre dëkk waaw euh, damay wax rek ni euh, ñoom Abdou juuf ñoom Blaise Diagne ñoom Tanor mii làqu fan yi weesu ñoom Macky Sall bii ñii ñëpp ñoo bokk diine te seen diine du ñoo bokk diine ñoo bokk sëriñ ñoom nii ñëpp a tudd nii ñoom xam nañ li may wax donc euh, gëmuñ dara nguur gii lañu gëm nguur te nguur nag ñi ko gëm ñëpp ñu ngi ñu ngi gis ni Sénégal ñu ngi màggal ñëpp ñu gëm nguur donc Sénégal nag euh, ñi ko tabax ay nit lañ ñu tegu woon ci siraatal mustaqim ay nit la ñuy xeex gàddaay seen i njaboot bàyyi seen askan di xeex ngir dëgg texu fi ñooñu ñëpp dañ leen fàtte ba pare bañ leen jàngal suñu ay doom donc nag Sénégal ñi muy màggal ñëpp moo tax mu ne privé la xoolal tal yi xoolal koñ yi lépp ñu tuddee ay tur ay tubaab lañu ay Jules Ferry Jules Ferry am na rue Sénégal Dakar Jules Ferry moo waxoon ni projet mooy dàq yàlla ci yorinu dëkk bi maanaam yàlla warul bokk ci ñu waree yore dëkk bi Jules Ferry boobu jox nañu ko tur dëkk bi Gambetta nga xam ne xaritam ne woon na diine yëpp ay fen la kooku tuddee ko koñ fii biir Sénégal donc Sénégal ñi ñuy màggal ñëpp leen tuddee ay koñ leen tuddee ay ay ay paras leen defal ay statue ñooñu ñëpp gëmuñu woon yàlla gëmuñu yonent bi te faale ñu woon ni ku ñuul ay tubaab la ñu woon ne c'était des négriers donc lii mooy kon dëkk bi ñun ko lépp mensonge la à commencer par le nom du pays turu dëkk bi si moom euh, ab kàcc la donc suñu histoire bu ñuy jàngal ay lii mu ngi jógee fii yëpp ay kàcc la wax dëgg yàlla ñoo nax te dafa jot jamono bi ñu xoolaat suñu histoire gis naa sax ni naam am na commission bu ciy liggéey muy commission ñoom Iba Der ñu ngi liggéey ci defar euh, histoire euh, véritable Sénégal déjà li rek kàcc la dëkk bi nga xam ne am na indépendance depuis 1960 ñu xaar ba 59 ans après pour soo commencé xalaat ñoom ci histoire Sénégal dëggantaan bi nañ ko bind lii gàcc la waaw euh, dama jàpp ni nit ki mënoo weddi li nga doon mënoo bañ sa bopp pare mën def dara lu am solo il faut ñu nangu ki ñi ñu doon maanaam fi Sénégal amoon na fi balaa tubaab bi di fi ñëw ak naar yi di fi ñëw fii amoon na fi Bawol amoon na Waalo amoon na Kayoor amoon na jolof amoon na jandeer dëkk yëpp am na nu ñu tëddee woon am na ñu doon doxee noonu mu doon doxee nag mun ñu ko jël dagg sànni mel dara baaxu ci il ñu tabaxaat suñu tey par rapport ak démb bi ñu amoon il faut ñu bàyyi xel ni réew mi réewu jullit la te mun ñu ko doxal wala di tabax ko seppi loxo yàlla sànni fële xam nga àdduna bi ñaar yi fi nekk dëkk la yoo xam ne dañoo ne dëkk yi yàlla moo ko moo ko ilif wala dëkk bi nga xam ne nit yi ñoo ko war a ilif Sénégal dañoo opté nag dañu ne yàlla warul ilif suñu dëkk nit yi ñoo ko war a ilif te nit yi ko nag euh, moo xam ndax ñoom ñoom William Ponty bi ñu tuddee rue William Ponty góor jigéen la woon franc-maçon la woon homosexuel la woon célibataire la woon pourtant am na fii tali bu ñu ko tuddee tuddee ko fi tali donc ñun ñu jël modèle ñoom Montesquieu ñoom Rousseau ñi ñëpp nga xam ñoom la Sénégal ni ñoom la nangul li ñu war a doxal Sénégal dama ne ñii ñëpp kenn gëmu ci yàlla kenn faalus ni ku ñuul et que ñun a récupérer ñun dul ñooñu pour tabax suñu indépendance moom ba tey nekkuñ ci indépendance ñi ko doon xeex kenn si ñoom mu ngi woon fii si biir ku jox pa àll kan donc euh, bañ doon xeex indépendance mooy jamono bi nga xam ne fay dem di jël décision te kenn loo ko dicté ba tey jii may wax ak yow président Macky Sall bee nekk ci pale indépendant parce que décision yu bëri amul droit sañ-sañ jël ko sans woote Élysée laaj ndigal ba jamono bii may wax Non, absolument pas, parce que sur des questions stratégiques qu'on avec des accords secrets euh, avec l'Elysée, le président Macky Sall pas libre. Sur des questions monétaires, il n'est pas libre. Il est obligé d'aller à l'Elysée pour avoir le recours. Sur des questions diplomatiques, il n'est pas libre. Sur des questions de sécurité intérieure, il n'est pas libre. Sur des questions même de défense, il n'est pas libre. On a des accords secrets avec la France,